بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين bakoy nu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni boroom bi subhanahu wa taala mooy ki ko jagoo moom rekk noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain noo ngi ñaan sunu borom bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula an yajcal alquran alazim rabia qulubina wa nuura sudurina wa jalaa axzanina dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim sunu bind bi weesu ñu ngi jeexaloon tafsiru suuratu taxaabun tey ñu war a tàmbalee saar wi di suuratu talaaq suuratu talaaq ci saar yi wàcc madina la bokk xam ngeen alquran xaaj yi madina la wàcc yi wàcc màkka suratu talaaq fukki laaya la ak ñaar suratu talaaq am na ci borom xam-xam yi ñu koy tuddee suratu nisaai a alqusra saaru jigéen ñu gàtt saaru saaru jigéen ñi te mu gàtt ndax saaru jigéen ñi mooy te mu gudd mooy suuratu nisa waaye boo déggee saaru jigéen ñi te mu gàtt ñu ngi ci namm suuratu talaaq suuratu talaaq alquran lépp am njàngale la moo xam ni nit ki daf ko war a xam waaye nag rawatina saar wi rawatina képp ku nekk borom kër tey góor rawatina képp ku nekk borom kër tey jigéen ndax sëykat ak jaamu yàlla gu foor la la ko takk tekkiwu ko saar wi mi ngi tàmbalee waxi borom bi subhanahu wa taala audu billahi min alsheitan arrajim bismillahi arrahmani arrahim ya أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا يجوج مي الايه الاولى ci saar wi insha allah moom rek mooy nekk sunu bindab tey saar wi mbokk yi muy suratu talaaq saar la woow wu ama am solo donte alquran lépp am solo saara ngi woo xam ni comme ni nu ko diggee woon ci jeexintalu suratu taxaabun saar la wow kenn ku nekk ci ñun war noo ko gën a joxaat yitte akuk settantal ndax saykat ak jaamu yàlla la gu foor ay fasante kóllëre aju ci ay yaakaar aju ci ay warante man caa am ay feccante kóllëre man caa am ay tooñante man caa am ay gàddoonte àq man caa am te jàpp naa ne lii ma jot a wax rek ku ko seetlu di nga xam ni kon ndekete mbir mi simple la tut nag ndax gépp jaamu yàlla goo xam ni tudd nañ ca fecc kóllëre tudd ca wor tudd ca tooñ tudd ca yàqu mbokk tudd ca jëflante bu ñaaw tudd tudd ca ameelante ay àq ah googu jaamu yàlla mbokk yi li ci daje bari na de saa boo ci sooboo ba génn ci te génnee woo ci na lislaam bëgg nga génnee ko ci yàgg-yàgg di nga ko réccu yàgg-yàgg di nga ko réccu tey jii am na ñoo xam ne dañoo génn ci sëy te jaareewuñ ci bunt ba lislaam bëgg ñu jaar fa génn ci sëy bu dee góor la ñu ngi koy réccu bu dee jigéen la mu ngi koy réccu la ko waral mooy léeg-léeg nga génn ci fekk da ngaa wor doog caa génn te wor saa boo ko defee rek gis ko ci kaw suuf léeg-léeg nga génn ci fekk da ngaa tooñ doog caa génn te tooñ du gàllaaj léeg-léeg nga def ko fekk da ngaa fecc kóllëre doog caa génn te fecc kóllëre ni njabar di def ci nit noonu la fecc kóllëre def ci nit da lay yàqal léeg-léeg nga génn ci fekk da ngaa gàddu ay àq doog cay génn te àq moom da ngay delloo fii baa nga delloo fee kon yooyu yépp mbokk yi léeg-léeg nga tas yaakaar doog ciy génn te doomu aadama saa boo tasee yaakaaram borom bi mën na laa nattu léeg-léeg nga génn ci fekk da ngaa dag ak dagg ak mbokk dog cay génn te sunu borom mu noon mbokk ku la dagg ma dagg ko léeg-léeg nga ñaawal ak aw askan doog caa génn te ñaawal aw askan ak daggu mbokk benn la ah mbokk yi yii day ku ko seetluwaat bu baax da ngay daal ni ah man di ndekete xawma woon ni sëy moom parce que fase nii la yëf yi da garaawee mbir mi niñ ko foogee sëy dagan na teqali koo dagan na affaire bi simple mu jeex mbir mi simple wut noonu de déedéet beneen bi ci des mooy sëy ci boppam buy tas dañ ko war a xoolaat bu baax ndax dafa am ay mbir yu bare bare bare bare yu ci aju mbir mi nekkul ñoom ñaar ñoo doon ànd rek ba mu yàgg teqali ko nañ affaire bi jeex yombee wut noonu de beneen bi ci des mooy jigéen ji du fas woo xam ne da nga koy yeew ci gétt gi rek soo dee ba mu yàgg mu loof mbaa mu yooy ah mbaa mu feebar nga ni xaaral ma jaay ko mbaa ma wàcc ko dem wutaat beneen indi yeewaat mbir mi demewut noonu du matériel boo xam da nga koy yore ba mu yàgg rek nga ni ah kii de sàppi na ma xaaral ma dem jëndi matériel bees comme ni ñuy defa suñ téléphone yii ah mbir mi demewut noonu ndax kii nit la de soxna si nit la de te dafa foor lool fa suñ borom yàlla mi la jox ak kilifteef bokk na ci li tax ak kilifteefam mat moom sunu borom mooy dafa bari doole ba dot bari yërmande sunu borom bokk na ci li tax ak kilifteefam mat ci doomu aadama yi mooy dafa nekk kilifa ba noppi am doole ba noppi jiital yërmandeem est-ce que yow bi la yàlla defee nga nekk kilifa ndaw si am sa doole ci kawam est-ce que jiital nga yërmande ci moom kilifa gu yërëm ka nga bëgg rek ka nga nekkal mu bëgg la sëy nag dagan na teqalikoo dagan na waaye teqalikoo day ci dagan yi nga xam ne sharia bu sañoon du am da ngay dégg ñu ne teqalikoo solution la déedéet teqalikoo du solution de dañoo wër solution ba ba sonn amuñu ndax aayaat yi ñëw ci alquran sunu boroom di jéem a def ay mbir gi ngir sauver sëy bi moo lay wan ni kon loola mooy solution waaye du teqalikoo borom bi subhaanahu wa taala bi mu yoonalee sëy ku góor ak jigéen di ànd ba mu yàgg ñu yëg ni ay benke-ñenke mi ngi tàmbalee am te loolu kër gu nekk am na fa moo xorom ñooyam kër goo dem rek da cay am bi loolu amee borom bi daal di tàmbalee wut ay médicament yoo xam ne mën nañ caa saafaraa yëf yi bokk na ci la sunu borom di wax ca téeréem bu tedd bi daal quran wallaati taxaafuuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fi lmadaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alay tabghuna alayhinna sabila jigéen ñi nga xam ne da ngeen leen a yore ba mu yàgg ñu tàmbalee indi ay tànki bukki di déconné sunu borom mu ni faasuhunna waar ko su fekkoon yow daawoo jëfandikoo usulu bopp waar yëgal ni sag waar keroog du am njariñ ba jàmm yi xew problème amut dara amut léeg-léeg nga waar ko fàttali ko yàlla tooyal ab xolam su boobaa boo waaree tey te it nga xamoon usulub boobu dana def jeexintal waxuñu la it nga waar benn yoon daal ni wax naa ko dafa dëgër bopp déedéet parce que daawa tamit it mën nga koy wax ay mbir ab diir mu doog a jël xëy na la nga ko jox moo doyut xëy na la nga doon leeral moo leerut xëy na na nga ko doon waxee ab dënn nga doon waxee te xam ngeen ne wax ji ñu waxee dënn ak li ñu waxee ab xol ak li ñu waxee am xel yooyu duñ bokk su fekkee jaar nga fa nga war a jaar ci waar loola xëy na am na détail tafasil waaye bu ñu ko toppee damay ragal mu jël suñu waxtu mu ne wahjuruhunna fil madaja tongu leen leen waxul minal madaja waaye fil madaja la wax bàyyil soxna si ca lal ba nga génn dem tëdd ca suuf wala bàyyi ko nga ak ay gi néeg ba nga dem tëdd feneen waxuñu loolu de demal fa ngeen daan tëdd ngeen tëdd fa waaye nag téyal sa bopp mu xam ni dangaa mer yi nga amoon yépp di ko maye gratuite téye ko yi ngay maye gratuite mooy say kaf say ree sa jàmm yooyu yépp ay gratuite la wax dëgg yàlla yépp téye ko ngir wan ko ne damaa mer tey nga defoo ko uslubul hakim nag waxuñu la nga mere ko mer moo xam ne dangaa téye sa bopp doo ko nuyu doo kaf ak moom doo def lenn lenn lenn lenn même àq sax doo ko war a jox bu dee dépense doo ko ko jox déedéet da ngay def li ñuy tudd tasaruful xakim mooy bu farata joxee jox ko ko ba mu jàpp ni mere woo ko lu dul farata nag bu jotee na nga téye sa bopp gis nga ñaar yooyu soo ko boolee wallahi ilaajun naajiun bi isnillah ñu bari ci ñun buñ ko defee li tax du jeexintal mooy da ngay ëppal ci mer mi ngay mer su ko defee ëppal lépp lu mu am rek du am jeexintal waaye tey bu fekkoon mbokkam dafa ñëw wala kenn ñëw fa wala yu demee noonu nga waxtaan kaf mel ni du woon yow bu yëf yi rombee nga tëjaat téye sa bopp yi nga doon maye yépp gratuite tamit nga téye bu la laajee loo xam ne da nga ko ko war a jox nga jox ko ci njëkk ak teraanga soo paree téye sa bopp gis nga ay ilaaj boobu moo gën a gaaw ci caw ku jigéen ki ay yar bu ñu noppee ci loolu sunu borom mu ni wadribuhunna kon nag comme dafa dëgër bopp waar nga deful jeexintal tong nga ci kawlal bi deful jeexintal mu ni duma ko mbokk yi sharia ku ku ku organisé la ak dundam bàyyiwul nit ñi rek kenn ku ci nekk li ne sam xel rek nga def ko su boobaa ay am waaye soo koy dóor sax dalay wax nii nga koy dóoree mu ni dóor yoo xam ni doo ko gaañ doo ko dóor ci yax te it du ëppal da ngay mel ni kuy caw gone na yëg ni aw mettit dal na ci yaramam waaye bul ko gaañ te it nag wala tadribil wajha bul dóor xar kanam gi parce que mën nga ko caa dóor defal ko marqué marqué ëllëg góor gis ko du ko xemem ca loola allahu akbar te xoolal yow sharia mi ni nañ la dóor dalaa mere di xam nga ne ki ñu dem ba joxe ndigal nañ ko dóor kooku xam nga dañ kaa mere waaye sharia bi mu la meree ba ni nañ la dóor sax mi ngi contrôlé nuñ la war a dóoree inna allaha kaana bikum rahima wala tuqabbih bul ko wax ju wax ju bon wax yu ñaaw joo xam ne ku ko dégg rek xeeb ko mbaa mu sib ko mu ni déedéet bul def loolu ah mu ni soo dóoree nag fa in ataanakum bu dee dañ dégg na ndigal ca dóor ndax am na koo xamante ni liñ naan axirul ilaaj alkayi lakk ci sawara moom xanaa mooy jeexintal mooy xam nga buñ demee di war a pikiir pikiiruñ ñu war a jox ay doom joxuñ doom ñu war a dem ba war laa ñaas ci safara nag dëgg dëgg dëgg nag fala faj man fanaam moo tax arab yi di wax ni axirul ilaaj alkayi suñ la toppee mu ni jërul nag wax ji di jum kaw kenn di ko dégg ah ñu dem ba mu yàgg ku góor ki gis ni kat ndaw saa ngi génnewaat ay tànki bukki sharia mu ni kon sawaay te nga xool ni ngay doxaleeg moom est ce que du yow yaa jaarut yoon yow yàlla mu ni wa ashiruhunna bil maaruf soxna si kon dëgg dëgg nag seetal ni ngay jëflanteeg moom est ce que rafet na est ce que baax na su ko defee nag léegi da ngay def autocritique jox joxañ sa bopp léegi man est ce que li ma war maa ngi koy def ah soo tàmbalee yedd sa bopp amaana di nga gis ay jeexintal soppee ko am fekk ndeke yaa waraloon paan bi paan bi am ci daamar ji ndeke yaa ko waral nga dem ba mu yàgg gis ni soxna si ba léegi mi ngi continuer indi tànki bukki saraamu ni sa waay ku mat amut fenn de te it ba yaba nga xam ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lakum kii sa sutura la de bu sa mbubb mi dañee sa sutura xaawee ko de moog sa tubay jee yam soxna si noonu la mel ci yow noonu nga mel ci moom nit nag bu dee am ngam xel ci xam mbubb li muy jariñ da nga ko war a fonk wa antum libaasun lakum na yow it am mbubb nga ñeel ko moom ko mbubb mi war a xaawi xaawi sa sutura war koo suturaal war nga koo fonk nga dem ba mu yàgg nga ni xool naa xool daal kii daal faw ma fase ko sunu borom ne on wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi khayran kathira allahu akbar mbokk yi xoolal asaali bi asaalibun xakima da ngay xool yoon yi islam jaar nga xam ni kon loolu muy solution yi solution yaa ngoo kii daal xool naa ba xool gis naa daal kii mënuñoo def kii daal faw ma wàcc ko mu dem yoon sunu borom ne on wa asa an takrahu shay'an amaan na nga bañ benn mbir ba ni wàcc moo ne sama xel mi wa yajal allahu fihi xayran kathira te fekk yiw bu bare bare bare bare bare la ci yàlla denc te yow xamoo ko nga toogati ab diir gis ni affaire daal ba léegi mënatul ñun la demal demal ca avant dernière solution avant dernière solution mooy fabaathu xakaman min ahli wa xakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq allahu baynahuma woote leen léegi mbir mi léegi sekkare la woon sa digganteeg ndaw si wala boog sa yenn xarit ñoo ci jot yu bari ci njaaxum yi am day fekk fi mu war a jaar dafa jaaru waaye mbokk yi gis nga yii yoon ku ca jaar fukk yu ca jaar juróom-ñeent yi danañ rëcc léegi nag ñu war a woote waxtaanu famille toog taabal mbokki ndaw si ñëw moo xam baayam bu dee mi ngi dund ak nijaayam bu dee mi ngi dund ak magam bu dee mi ngi dund ila axirihi te waxtaan yu mel nii nag li ci ëpp waxuma chaque jour li ci ëpp bañ caa boole jigéen ñaa gën bañ caa boole jigéen ñi moo gën muy bàjjen muy yaay parce que sot sot loog deret jigéen a ko gën a man ci góor rawatina bu jamonoy metti di yegsee ndijaay baay mag rak yooyu yëpp mën nañoo teew suñu borom mu ni in yurida islaahan bu dee ñoom ñaar kenn ku ci nekk sobi sëy bi moo nekk yéeneem ñaari famille kenn ku ci nekk log-logalut lum nëbb log-logal fekk yow yaa ngi wax ca kaw waaye la ca suuf mooy sëy bi na tas moo ne sa xel mi suñu borom mu ne bu loolu amul yuwaffiqi llahu baynakuma yàlla mu ne maay def solution xool ñaata yoon nga gis taabal waxtaanu taabal am rek solution am xëy na mën naa fekk ku góor ki am nag repp nga léeg-léeg sa repp nga sa ndijaay lay doon nga xam bu ñu jaaxlee rek dañ naan wooy leen di jaayam di jaayam ju mu ñëw yow yow repp nga de yow xaa da ngaa uy ah su ko defee nga daal di repp waaye ñun ñii ñëpp nag boo seetloo amuñu repp nga ñàkk gi ñu ñàkk ay repp nga moo tax ñuy defi njaaxum rek gis nga repp nga moom ku ko amul repp nga mooy koo xam ne sañ na laa wax yow da ngaa repp xanaa baat boobu bëriwul lu ma koy dégg fii ci taaxe waaye boo demee ca kaw nga da ngay gis ku yor ñaari jabaram sax sikkim am sax bee jaaw ndijaayam ne ci dëkk bi dund wala rakki baayam wala nangam problème am ñu woo ko day dikk joxoñ ko ba luqati bopp ba bu ma yow da ngaa rep mel ni koy wax xale bu ndaw effectivement loolu dafa war a am ci nit nit ku nekk gis nga nit koo xam ni amoo koo xam ni buñ jaaxlee moom la ñuy wooy doo nit ku baax maa la ko wax képp koo gis muy dund te bu nit ñi jaaxlee ci moom amuñ kenn kuñ mën a wooy maanaam yow da nga war a am koo xam ni moom bu ñu jaaxlee ci yow rek bu ñu ko wooyee mu sotti ku jigéen ki ku góor ki léeg-léeg sab xarit lay doon léeg-léeg sa bàjjan lay doon léeg-léeg sa maam lay doon léeg-léeg sa baay sax lay doon waaye daal dina am koo xam ni wala ñoo xam ni bu ñu jaaxlee ñu ne waa te ngeen a wooy diw boobu xëy na bu ñëwee man ci dara kooku bu ñëwee rek ndeysaan solution am sunu borom mu ni su fekkee loolu am na nag ah axirul ilaaj alkayyi ñaas ki sawara moom fa la yem su boobaa la ca des mooy teqalikoo talaaq sharia nag balaa teqalikoo di am ah borom xam-xam yi danañ la wax ay baat nag bu dee bu dee ku am xel la ñi nga xam ni ay expert lañ macha allah ci wàllu sëy nga xam ngeen ni am na ay góor wala ay jigéen am na ay mag ñoo xam ni macha allah la quwata illa billah tey jii buñ doon maye ay licence wala ay doctorat dinañ leen ko may ci xam-xamu sëy xam nañ ci lu bare bare bare ñooñu boo ci woowoon benn expert mën na laa jox ay solution solution yi bokk na ca mooy a dane wa in imraatun xaafat min baaliha nushuzan aw irada fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu xayr problème bu naree am te ngeen ne waxtaan ba juboo lu ngeen mën a def nag waxtaan ba juboo ko gën gis nga de moo tax moo lay wax ni borom xam-xam dañuy wax ne maanaam tas du solution parce que loo mën a def suñu borom mu ni wa sulhu xayr looloo gën bi ñu demee ba gis ni kat pexe yi amoon yépp jeex na léegi moom fi ne teqali kaw moo fi sës ah ci situation yu metti yooyu nga xam ni daanaka wax ci nit lu mu dégg day jafe parce que day fekk góor ki suur na ku jigéen ki suur na wala ñoom ñaar ñëpp ñu suur wala kenn ci ñoom suur day fekk seeni xol fudd te xol bu fuddoo léeg-léeg booy wax borom du dégg te it mbir mi dafa laaj tekkaaral ndax kenn du ko gaawtu wala fi ne nañ boo nee tekk tekk ni la sa waay fii nga war a jaar ñu bari ci ñu ne dañuy rambax rambax yi def moo tax boo paree dal di réccu fii may wax ak yow nii yàlla borom asamaan xam na ni téeméeri nit yoo gis yu génn ci sëy juróom-ñeen fukk ya ak juróom-ñaar dañoo rëccu maa la ko wax dem nga ba ci biir nga gis ni kii waroo war a teqalikoog moom da ngay dem ba ci biir nga gis ni même bu doon waroon ngaa teqalikoog moom doom yi ngeen jot a am wala doom jigéen jot a am am na lu mu laaj lu tax waroon ngaa toog di nga dem ba mu yàgg nga gis ci sa doom yi wala sa doom ji lu la naqari fekk li la ko xañ mooy gone kenn du ko may ñaari kër gone génn kër lay am fa lay yaroo waaye am ci yarukaay kër baay am yarukaay kër yaay am yarukaay kër maam gone ga du yaru déedéet illa man rahima rabb xalaat conséquence yi ca mën a topp yépp ndax mbir mi nekkul mbirum fase naa ko nawet daw bu jeexee mu dem yoonam ma dem sama yoon mbir mi simple wut noonu de sawaay ah tee ngaa fàttaliku bis bi ñu lay may soxna nga xam di sa kontaante yegg na ci kenn ku ne yëgal nga ko ci cib soppe est ce que bis boobu yaa ngi koy fàttaliku mbégte ma nga àndaloon teg ko ci balance nga gam-gam lekkoog mer mi nga toll tey ndax nit day am sago fu mu mën a toll sa waay xoolal li ngay def bis biñ lay may soxna fàttaliku ko guddi ga ñuy yàpp soxna si ci oto ñëpp kontaan di la ko andil fàttali ko ko nga gam-gam lee ko guddi gi ñu ko nar a yebee ci ay bagaasam di ko delloo ndax taamu sutura bee sutura la bii sutura la sa waay xoolal li ngay def mu ni teg sawaay fàttalikul ni am na soppe yoo xam ni bis boobu ñaanal lañ la façon ñaan gu nekk ñaan yooyu yow yaa bëggul mu nangu wala boog da nga gëmut ñaan fàttalikul ni yu bare bare bare bare bare kontaanoo nañ ci bis ba am na ñoo xam ni kontaanuñ ca woon ña ca kontaanoon bis ba ngay sëy ak ba ngay takk bis bu ñu déggee teqalikoo danañ am lu leen naqari te yaa leen ko nar a teg ña ca kontaanul woon nag tey teg nga leen mbégte te sab noonu kenn du ko kontaan loo sawaay tee ngaa xalaat ni kii ngay nar a wàcc tey rakki jàmbur la te am nga rakk de sawaay am nga rakk bu dul rakki ndey ak baay ak am nga rakki baay wala rakki joo xam ne ngir yaay la sama gi jabar sarakki jabar képp ku ci dégg ni diw sàngam de sama goro bi wàcc na sama rakk fooy toll fan la lay toll lan nga yëg ci sa xol da ngay commencé sot sa mbirum sotu mbirum deret commencé naa ñëw natt ko ci kaw bu fekkonte ne tey sa rakk la ah sa waay xoolal li ngay def rakki jàmbur la de jigéen ji yaayi jàmbur la parce que jural na lay doom jigéen ji rakki jàmbur la parce que am na mag wala am la rak jigéen ji doomi jàmbur la am na baay te it bu fekkonte ni bàyyi nga nga jékki-jékki problème am ci sa sëyu doom soo sañoon jàmm am te de sa waay jëf mooy jiitu xalaat moo koy jiitu ah sa waay tee ngaa xalaat ni ndaw si du yow rek yaa ko bëggoon am na ñeneen ñu ko bëggoon am na góor yi ko bëggoon ndaw si bàyyi leen ñoom ñëpp te amaan na am na ca ko xam bu dee situation moo la ko ëppale ngir taamu la nga nekk bàyyi doomam ah sa waay mbaa bàyyi gi nga koy bàyyi du nekk tasum yaakaar te yaakaar day bu tasee kóllëre boo ko feccee gudd gat da nga koy gis ci kaw suuf est ce que xam nga ne am na ñoo xamante nii bi ñu ñaanee baat ba dem wala ñu wàcc seen soxna ba pare waxuma ñépp de am na ñoo xam ne laa wax catastrophe yu métti dal na leen xam nga lu ko waral mooy boo jàngatee mbir mi ba ca biir wor da caa am war da ci am de fase léeg-léeg war da ci am ñaan baat léeg-léeg war da ciy am war ak fecc kóllëre nag saa bu ci amee ñaari jéego doo ko dox lu dul borom bi dana la ko wan subhanahu wa taala ah sa waay ñaata yoon ndaw si jaabante na marché di la toggal ñaata yoon lakk na ngir yow da doon togg wala da doon paase ñaata yoon jooy na sax ngir yow ndax da ngaa feebar xool coono bi muy daj ci yow misaal bi ma joxe woon ci dar si paas inna ma wala ko ala du fitna nga xam ni mbindaan bu ne kay roose mbindaan la kay fo faweere mbindaan la yooyu yëpp fonction yëpp ndaw see ko yore te fa yow ko dara est-ce que xalaat nga loolu ak yeneen ak yeneen ci ay baat yoo xam ni borom xol bu baax boo ko wax ah bu naree defit dana def ndànk ku jigéen ki ah bàyyil xel ni day fi mu ne nii lépp lu la naqari ci sa kër ba ngay damay tas am na yeneen jigéen yum naqari seen kër ña nga toog muñ lépp lu la naqari ma nga naqari sa moroomu jigéen te ma nga toog nam suturaalee boppam te nga koo suturaalee sa bopp ah sa waay bàyyil xel ni say moroomi nawle day ci sëy lañ nekk ci sëy nga nekk gis nga fii boo fi jógee boo ne damay toog ba ñu amaat jëkkër wax nga lu dul mën a nekk mer mu tàng tax nga di ko wax ak mer mi seddee nga xam ni mënta nekk te bis boo wutee geneen góor xamoo ndax la ngay fekki moo gën a yées li nga bàyyi koom déet te nga xoolaat li ngay def ah ndaw si te nga xalaat ni jigéen day war ma ak teggin fii ma ngay am borom kër mi ngi koy am bu ñàkkee borom kër rek mu mel ni sër bu xottee ko tee ngaa bàyyi xel ni teqalikoo gii kat mbaa du nekk sa mujjantaluk am jëkkër ci kaw suuf ñaata jigéen ngeen gis yoo xam ba ñu teqalikoo ñoom sayee fa la jaaree sayee amaatul borom kër est-ce que bii du nekk sa mujjantaluk am borom kër bàyyil xel bu baax ni ah am na say morom yoo xam ni yaag ñoom yéen a tolloo de tey kenn ku ci nekk ma nga am ayibi biir néegam waaye ma ngi koy nëbb gis nga lii kenn ku nekk ci ñoom ñaar boo wéeteeg moom nga wax ko ko mooy li ma wax sànq li boo amee ay experts yoo xam ni kenn ku ci nekk xam-xamam moom màcc na ci wàllu sëy yàlla xam ne ne gis nga lii ma fi wax ciy baat lu ko gën a néew lu ko gën a néew nit ñaa ngi koy wax muy am ay jeexintal léeg-léeg nga gis ñoo xam ne sax la ñuy xalaat moo gën a rafet lii ma xalaat nii man su fekkente ni def nga loolu nag nga léegi nag dernier dernier solution ñëw nag mooy taaj leen ñoom ñaar ñëpp ñu toog boo leen taajee nga ne leen jigéen ju nekk ak góor gu nekk bu dee sëy bi doom jot na caa juddoo xamal leen ni leen gis nga doom war nga koo sàmmal àqi baay ak yaay ci genn départ bari waa na tey ñu am naq lu leen naqar naqari fekk la leen naqari dëgg dëgg dëgg dëgg mooy seen baay ak seen yaay dañoo teqalikoo yàlla xam na ne am na ñoo xamante ni tey boo leen laajoon lan mooy seen naqaru àddina dañ naan la seen baay ak seen yaay dañ teqalikoo soo leen waxoon lan nga gën a bëgg tey dañ naan la sama baay ak sama yaay dañ delluwaat misaal yi ñu ci mën a joxe bari na defe naa nettali woon nañ fi benn xissa bu ñu am mbokk nettali woon nga xam ni ndaw sa dafa mokkal doom ji daa mokkal Qur'an laaj doom ji lan nga gën a bëgg bee moom dañu ko dama bëgg nga muuru far daw sa muuru ku góor ki moom bitim réew la nekk woo woo doom ji ni ko waxal loo gën a bëgg ma defal la ko mu ne ko li ma gën a bëgg mooy nga takkaat sama yaay alhamdulillah moom it nag sàmm na ko leen moo tax ñu ne booy dig sa doom dig ko loo man mu takkaat yaay ja wutal ko kër fii ci ndakaaru loolu ki ko nettali mi ngi fii ci jàkka ji kon moo lay wan ni mbir yooyu lu am solo la ñu ne tekk nga ni leen gis nga góor ak jigéen a ci yam gis nga ku yeewu fekk geneen góor gudul sa baay di fanaan ak sa yaay boo ko waxee boo ko naqul am na lu naqari sa xol maa la ko wax fi mu ne nii may wax ak yow amut sama rakki baay la amut sama baay dafa faatu bàyyi ko fi amut dara gis nga nit moo mel noonu ki ca gën a garaaw nag mooy góor gis nga góor mënta supporter geneen góor gudut baayam di fanaan ak yaayam góor mënul supporter loolu maam da ngay maslaa rek xam ne yàlla moo ko daganal judd naa fekk ko fi wala awma ci benn pexe nga romb jàll waaye bu doon say choix rek góor ñu bari mënuñu koo dékku nga xalaat loolu ah su boobaa nag nga fàttali leen ñoom ñaar ñépp nag wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham soo leen ma yeb diir ñu xalaat lii ma wax téeméeri téeméeri nit wàññeeku nañ ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a baaxe ñuy wax ci sëy ak li koy yàq ak li koy defar yàlla may na leen ci xam-xam loo xam ne alhamdulilah baada tawfiqi rabbi subhana ak baraka bu sunu borom def ci seeni kàddu bari waa na sëy yu yang di waaj a daanu ñu wax ca jàmm am te loolu nag dafa war a am ay nit ay commission yoo xam ne loolu la ñuy lijjanti l'islam ni muy amee qaadi am yéye am am oustaz buy jàngale am imam buy jiite war nañu am ay nit yoo xam ne tey bu ñu amee problème mu sëy ñoom la ñuy wooy ah su fekkee jaar nañ fi ñu war a jaar yépp nag sottiwut nag sunu borom mu ne ah buntu yaa ngi noonu attalaaqu marrataan attalaaqu fase moom marrataani bu yeba nga xam ne ñaari yoon la buum gi ñaari dagg-dagg la nanguñu dagg ko ko moom du nangu ko ko dagg ñetti dagg-dagg fa imsaakum bi maaruf da ngay mën a téye ndaw si ci njekk aw tasrixun bi ixsaan wala nga yeewi ko ci njekk beneen laaya mu ni laa junaxa alaykum in tallaqtum nnisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matticuhunna ala almuusici qadaru wa ala almuqtiri qadaru mataan bilmacrufi xaqan ala almuxsinin moom it di wane ni daga fase dagan وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ومت فسلي جانغالي دي وانا كيغا فسي ها تفك بين كوي فسي جوتو سيك موم لي موي اتبي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها موي جيجين جيغا خامي دنجكو فسي ah takk ba pare fase ko te fekk maanaam àndagu leen àndagu leen yaa ayuha annabiyu ida tallaqtum nnisaa fa talliquhunna li iddatihinna muy sunu saaru tay wi di wane ne kon fase mën naa am wa ida tallaqtum nnisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrixuhunna bi maaruf di wane ne fase mën naa nekk nga ñëw ci sunna xadisab abdullah ibni omar wala xadisab omar ibn alxataab mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne xadis la bu wér la abu daawud solo na ko ak nasaay ak ibni maaja ak ñeneen ñu dut ñoom ñu ne yonente bi dafa xëyoon benn bis mu fase soxnaam su ñuy tuddee xafsa xafsa bu bagaasam dem kër baayam yàlla daal di yebal jibril ni ko demal neel muhammad na ko fay li tay tay tay tay tay allahu akbar yaa laha min manqabatin azima ah mbokk yi ndaw si am na succès de fayli moo tax soxna yonent bi saa sallam da ngay dégg ku nekk di am looy bàkkoo kii naan man ña ngi ma takkee ca kaw asamaan sa kii naan yàlla may yonent bi salaa sallam kii naan man moom bañ ma fay bañ ma fasee yàlla ma fay li allahu akbar yaay man aqib la de mbokk yi Aïcha lu mu waxoon moom Aïcha lu mu waxoon nee na yàlla moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg parce que ñëw na ci xadis bu wér ah yonent bi ci gént Jibril indil na ko nataalab Aïcha ni ko kii sa soxna lay doon ba mu bañ ko tuumaalee ca kaw la signature bi ko setal bàyyi ko bu dee Zaynab bint Jahsh da doon wax ni man de sëy bi moom ña ngi ko takkee ca kaw moom ndax yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah takkal kii moo tax ba mu ñëwee daa yegsi rek ubbi rido bi rek daal dugg waa da nga doon nuyoo mu ne ko yàlla may na ma la ndaw si nag moom dañu ba mu fasee bañ ko fasee moom dañ ko yàllaa ko fay li allahu akbar wax na dëgg de fal yuraajiha fay li ko tay tay tay tay tay lu xew lu xew nag moom siyaru alamin nubalaak bidaaya wa nihaaya ak safatu tafsir ak gis nga bara wax nga xam ne ni ñu amee ay teggin léeg-léeg am na yoo xamante ni daanaka daal duñ ci faral di xaw di xuus bidaaya wa nihaaya safatu tafsir siyaru alamin nubala téereb usudul gaaba téereb bële ji isaaba fi tamisi saxaaba tafasir yi dama xool xool xool xool daanaka doo xool ba gis ñu ne la lii lañ jote woon xëy na mën naa moom dañ koo xamul wala ñun ñoo ko xamagul waaye daal liñ ci mën a xam mooy ndaw si woorkatu bëccëg la jullikatu guddi la te ajana bu soobee yàlla sa soxna lay doon allahu akbar allahu akbar yonente bi daal di koy fay ni ci saasa kon yonente bi mas naa fase sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadisab abdullah ibn omar nee na damaa amoon benn jigéen benn soxna am na ay riwaay yu ñëw nag benn riwaay bi day ñëwee ci dafa fase soxna si fekk dafa gis baax boobu beneen riwaaya la riwaaya bii may wax nag bokkul riwaaya bii nee na damaa bëggoon daw si te sama baay bëgg ko xadis bi Abu Dawud solo na ko ak Tirmisi ak Ibn Maaja tamit nee na maanaam mi ngi mel ni nga takk soxna fekk sa baay àndu ci te xam ngeen ni ku mel ni Omar ak ku xam kan mooy Omar du ñàkk ànd ci soxna su doomam ci ay bànneexu bakkanam bi loolu amee Omar nee na daal di wax ni ko fase ko mu wax Abdullah ibn Omar ni faseel kii Abdullah ibn Omar ni ko kii du ma ko fase kii dama ko nopp du ma ko fase omar ñëw boole koog yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko déggalal sa baay nga wàcc ko loolu nag ay tafasil mi ngi ci ndax nit ki bu ko sa baay waxee fasel day fase déedéet mi ngi aju ci ban illa moo tax mu wax na ko fase ku mel ni omar ak ku xam koy omar xam nga ni ay bànneexi bakkan du tax mu ni ko wàcc ko léeg-léeg nag nopp sa soxna war naa war war naa waral nag ñu digale lu baax sax nga wàcc ko asim ibni laqit ibni sabira mu jëlee ci baayam mu jëlee ci maamam nee na yonent bi salaa sallam damaa ñëw ci moom ni ko man dama am soxna waaye soxna si lammiñ bi daf ratatatatatatatat mooy ñi nga xam ne sa waay ñoo gën a mën a wax rajo soxna si foo ko fekk ratatatatatatatat te lammiñu dafa ñaaw torop torop torop torop yonent bi ni ko fase ko mu ni ko ah am nañ doom de moo ma ci xaw a jaaxal mu ni kon saa bu yow nga téye ko kat loolu laa ci xam ko mënoo ko fase bu yow nga téye ko loolu laa ci xam kon baata fase ko ak yeneen i tegtal yoo xamante ni may bañ a guddal day wane ni kon fase sax na ci sunna amal ijma borom xam-xam yi lislaam yi dëppoo nañ ci ni sëy bu ñu dem ba gis ni mënatu la dem dees da ko tas waccante am waccante nag ku góor ki moo naan fase naa la wala ndaw si ni ko may ma sama baat wala boog ñoom ñaar ñu dëppoo ca wala boog ku jigéen ki ni may ma baat ku góor ki bañ ndaw si summeeku loolu la ñuy tuddee al xulu te xulu dana ñëw xulu insha allah mooy ndaw si gis ni war naa mën a tas mu ñaan baat borom këram borom këram bañ te it bàyyil xel bala ngaa ñaan baat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku ñaan baat te fekk amul benn illa ju lislaam nangu joo ko teg xetu àjjana du la xeeñ xam nga waxoon naa sànq ay danger am na ci góor ki wàcc fekk dafa war wala dafa tas yaakaar wala dafa képp ku ñaan baat ci jigéen ñi te fekk amul illa cause bu l'islam nangu sa bànneexi bakkan dong nga ko teg wala boog tegoo ko fu l'islam nangu xetu àjjan du la xeeñ àjjana na la gënal loo mën a am ci kaw suuf mbokkum julit su fekkee nag illa bi am na mu ñaan baat ku góor ki bu nee la fase naa la amut lenn loo koy delloo soo nee ko may ma sama baat mu ni may naa la ko amut lenn loo koy delloo waaye boo nee ko may ma sama baat mu ni mayuma la ko wala say bokk ñaanal la baat ngir ni da ngaa am illa bu tax ñu war a ñaan ñaan baat te it nag say bokk na ci seen yoon loxo génn ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu kenn di ñaanal baat kenn ma ngi ko dikkee ca sa sa sœur wala sa nangam wala sa mag bu jigéen bu dee jigéen la bul ko ñaanal baat su boobaa dañuy def lu ñu tuddee xulu xulu nag bokkut andi ko sénégalais yi defee bërki démb defe naa démb rek ci ngoon démb ci ngoon rek laa am gan gu ñëw wax mu jóge fa sori di ma laaj si masala mu mel noonu mu ne bokk na ca ba ñuy xuloo muy dañoo yëkkati mille francs rek sànni non deux mille deux mille muy deux mille lañ ko sànni dama sa yoon ma ne ko deux mille mooy la déedéet xuloo nekkul ab mille francs wala deux mille ngi déedéet xuloo mooy damaa bëgg ñu yeewi ma te lànk nañ bañ maa yeewi naa summee ko dalaa sololoon am mbubb summil mbubb ma mooy lan daa am lu mu la joxoon ba mu lay takk joxoon na la deux cent vingt cinq mille amul am nañ doom amul am nañ fukki at ak juróom amul yàgg nañ amul opéré nañ ma fi ci diggante bi amul déedéet amul caatal naa amul déedéet delloo ko deux cent vingt cinq mille am ndax yaa bëgg génn ci say bi moo la solal mbubb moom néewul la summil yaa ni ko da nga koy summi delloo ko ko benn jigéen borom këram moo nekkoon thabit ibni qays ibni shammam ndaw si daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man de dëgg dëgg sama jëkkër du ma ne jikkoom daa bon ku rafet jikko la te xam ngeen ni Thabit ibn Qays ibn Shammam min ahlil janna ku am jëkkër ñu ne la sa jëkkër ci waa àjjana la bokk yaakaar naa li lay wan ni sëy ak nobel ca la baax ci la de sëy nob ko ngay sëyal ca la ah yow xoolal kii jëkkër ji yonente bi nee na ko yow di nga dem àjjana bu soobee da ngay sëy da ngay dem àjjana mu ne ko sikkaluma ko ci diine sikkaluma ko ci wàllu jikko waaye daal yëgatuma ko ci sama biir xol dama bëgg mu may ma sama baat mu ne ko ah mbaa mën nga kaa delloo dama bëgg a summeeku mën nga kaa delloo lam la joxoon mu ne waaw lu mu la joxoon mu ne ko ab tool la ma mayoon xoolal tool ana tool ba mu ne ko mi ngi nii ci tàppaatu dëkk bi mu ne ko delloo ko mu delloo ko ko mu ne ko jeex na kadaalika it am na beneen façon tasin mooy bu fekkente ni ku góor ki daa yàgg àll ñu dem ba mu yàgg gisatuñ ko xamuñu ci lu mu nekk dundalul soxna si su boobaa dañ koy tas moom it ak nañ koy tasee incha allah yooyu yëpp dana ñëw ak yeneen ak yeneen kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni yaa ayyuha nabiyu ginnaaw muqaddima boobu nga xam ni mënul woon a ñàkk ñu am ko ci sëy ngir ñu xam ni mbir mi kat nin ko simple simple wut noonu sunu borom ni yaa ayyuha nabiyu e yow yonent bi ida tallaqtumu nisaa su ngeen faseetee seeni soxna xitaab bi kullul mufassirun dëppoo nañ ci ni muwajjahun ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam lakin lil ummati umuma alquran day ñëw xitaab wax ak yonent bi fekk yonent bi kese kese la ci nam wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabi kooku yonent bi kese kese kese lañ ci nam boobu xitaab am na qara'in yu ko wane mooy xaalisatan laka min dunil muminin am na xitaab boo xam ni yàlla yonent bi la koy adressé doonte tuddul aw turam waaye yonent bi taxu koo jóg parce que lu tax mu tax a jóg nekku fa ah wa qada rabbuka alla taabudu illa iyahu ma yabluganna indaka alkibara ahaduma aw kila fala taqul lahuma uffin yonent bi lañ doon waxal sallallahu alayhi wasallam waaye bokku ci parce que ba fekk mbaayam fekk fi yaayam kon affaire dafa dal ci kawam en tant que jàngalekat waaye moom du moo tax ñuy wax léeg-léeg xitaab bi day ñëw fekk lin nabiyi wa li ummatihi ya ayuha nabi lima tuxrim ma axal allahu laka tabtaqi mardat azwajik du yonent bi kese wa lil ummati aydan lay firndeel mooy qad farada allahu lakum lakum la lu tax néew ko qad farada allahu laka taxillata aymanik wallahu mawlaaka waaye taxillata aymanikum kon xeet lañ doon waxal waaye dañ ko adressé li tax nag loolu mooy dañuy wax ni boo dikkee ci mbooloo nga tànn wax ci jëmale ko ca ka nekk kilifa yóbbaale nga mbooloo ma te it yonent bi am na comme jot a fase ci ay soxnaam moo lay wan ni kon fase nag léegi da nga toll foo xamante ni xam ngeen ne yonent bi ku ko xam ak ni mu mën a yoree kër ak njàngaleem ni mu fooree waaye man damay toog ba mu yàgg dama naan jàpp ma ni samam xel wallahu aalam jàpp ma ni lu garaaw wala lu jar fase moo xew waaye yàlla léeg-léeg am na yoo xam ni moo koy yoonal dogal ko ngir am njàngale tàbbi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mu rafetee jikko ak nam defeewoon ca abasa wa tawalla xam ngeen ni ñaar yooyu dañuy xaw di wuute da lay wan ni kon nit kese kese kese la te comme moo nekk jàngalekat bu mag bi faw am mbir yoo xam da koy gaar pour ñu xam ni ak nite bu dikkee nite ñëw na sunu borom ni yaa ayuha nabiyu yee ee yow yonent bi ida tallaqtumu nisaa su ngeen faseetee soxna soxna yi fase daa jot jaar nañ fi ñu war a jaar yëpp ut nañ ay secours yu bare bare bare te benn mënu cee matut secours mu ne léegi fasa jot na ida tallaqtumu nisa léegi bu fasa jotee nag da nga yaakaar ne saa su la neexee rek nga ne ko fasa naa la mu dem yo déedéet gis nga danger yi ma wax yi jot a jàll jàppal yeneen danger mi ngi ñëwaat danger yi même boo jaaree fa nga war a jaar ba pare fase ci boppam dafa am nun koy defee ida tallaqtumu nisa bu ngeen faseetee soxna ida tallaqtum nisa yaani ida aradtum tatliqa nisa fa ida qarata alquran boo jàngee alquran fastaiz billah kon da ngay commencé ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim auzu billahi min shaitan rajim noonu la déedéet fa ida qarata alquran boo jàngee alquran fastaiz billah ay ida aradta qiraata alquran léegi dañuy wax waxi ni boo defee nangam fekk booy waaj a def nangam la kon ida tallaqtum nisa tallaqtum fi'lu maadin la lu passé la waaye nag fi'lu mudaari lay dikkee ay ida aradtum tatliqa nisa su ngeen nammee fase soxna ah fa talliqukunna na ngeen leen fase li iddatihinna fekk mustaqbilaati iddatihinna na ngeen leen fase ci seen edda déedéet fekk ña ngay dëgmal fan mën a eddawoo waaye bu leen fasee ci biir li ñuy eddawoo loolu lay tekki loolu mooy lan mooy jigéen day eddawoo gis baax ci bu dee jigéen juy gis baax la sharia day tere nga fase jigéen mer rek comme ni ko ñun ñuy def ñun amul waaj da ngay gis ko jékki-jékki rek mer rek may naa la sa baat bu fekkee da ngay gis góor guy jéem a jaay fulla ah da ngay nekk man man man man man waaye man góor gu ma wax ma gis nga loolu loolu du ngóora wallahi loolu du ngóora ku ma wax may ma sa may na sa baat loolu du ngóora loolu affaire ñàkk fayda dëgg dëgg dëgg maanaam yow sa martaba daa daa romb loolu xam nga léeg-léeg ah dafa am yoo xamante ni waxi xale la kilifa doo ko waxi xale ah man de ba may wax ma boo boo boo ko waxee doo ko tollanti de yooyu du wax déedéet góor gi am maîtrise dëgg dëgg dëgg góor gi jàmbaare dëgg mooy ndaw si nitee di ba di la ñaan baat nga nite ba xamal ko benn waaye soxna si dañu ko may ma sama baat mu ni teg soxna si ko may ma sama baat laa wax yow xanaa doo góor yow xanaa amoo fulla yow xanaa man dong maa fi nekk ci comme ni ngeen ko xam nga xam nga jigéen ñi ñoom buñ bis bis bis buñ jógee pour xas la moom mën nañ laa wax loo xamante ne léegi nga gasal sa bopp bàmmeel te li gën a yéeme mooy dañ lay wax kàddu goo xam ne même boo narul woon def da ngay def yow xanaa man dong maa fi nekk ci jigéen yow yow xanaa gëmewoo ma mënoo ma bàyyi ma dem xam nga xam nga góor daa gaaw a gis boppam nag xanaa gëmewoo ma xam nga fi ne yow su fekkee te fi ne yow daanaka la yàlla xam doy na amaana yaa ngi sëy ak moom sax fekk léeg-léeg ndeysaan da ngay gaññi rek da ngay gaññi rek di sëy xam nga léeg-léeg dinaay faral da ngay gaññi di sëy wala ngay gaññi di lekk wala ngay gaññi di naan fekk li ngay def dara neexu la ci yow boo tollee foofu àllub neen mun la xanaa man dong maa fi jigéen yow amoo ful la yow góor yow yow yow yow yow xanaa yow yow xanaa solo tuba yow wallaay li jigéen dañuy wax yow xanaa yow xanaa solo tuba yow bu yow nga war di ji may ma sama baat ma dem sama yoon lii lan la man dong maa fi jigéen yow daal boo amee fulla piip daal bu ma ko jógee fii lu dul da nga may sama baat léeg-léeg ñu wax la loo xamante ni da ngay mer nga fekk si leen gis nga su boobaa nag mbaam da lay wéq nga wéq ko mu nekk ñaari mbaam bu góor baag bu jigéen waa ji mu ni soxna si gis nga man dama am kilifa ba ma lay bëgg damaa waxtaan ak samay kilifa ba mu yegg si ci say kilifa su dee am nga kilifa yow jaaral fa nga jaaroon ci say kilifa yow ndax ñëwuma rek ñaan la ñu may ma la dafa am foo jaar ak say kilifa gis nga fa ma jaar ak samay kilif ba yegsi boo fa jaar ak say kilif ba yegsi ma may la sa baat insha allah gis nga gis nga jigéen boo ko waxee loolu bi ci njëkk al ula al xutatul ula mooy caw nga ko yarab amoo amoo yar amoo kilifa ñaareel bi caw nga ko yarab xaaral tuuti te doo nga dem bu xaaree tuuti rek dosage bi diggante bi kenn mën na faa jaar wax ca wala xelam dikkaat ila axiri nga daal di génn dem sa yoon tey yu mel noonu bul fa toog sax génnal nga dem sa yoon waaye yow jotee soxna sa bër nga jaaxaan ci digg lal gis nga léegi da lay wax loo xam ne booy jug sax doo ko tey xam nga ne yow fi nekk nii ki jotee soxna jaaxaan ci kaw lal bi mu fekk la fa ñëw sa waay koŋ sa bopp bi ne la yow xanaa solo tubay da ngay jug nag wax dëgg yàlla da ngay jug da ngay jug yow xanaa solo tubay xam nga li jublu mooy xanaa doo góor xanaa jigéen nga xam nga kilifa gu doy noonu ñu naan la xaar solo tubay wax dëgg yàlla gis nga ñu mel noonu moo tax balaa dañuy wax ne soo meree rek génnal nga dem kër ga nga génn kër ga yow dem sa yoon. saaraanal nag saaraanal bañ faa gaaw a ñëwaat ci diggante bi xëy dana am ñu fa jaar wala xeram dellu si wala nangam bu la wooyee téléphone coupé ko bu mu xam fan nga dem bu mu xam foo dem. fa talliquuhunna na ngeen leen fase li iddatihinna fekk ñu ngi dëgmal fuñ mën a eddawoo. wallahi mbokk yi islam moo mën a organiser kon ndekete soxna si du saa su la neexee rek nga fase ko maanaam da ngay jékki-jékki tey ci ngoon nii rek mere ko rek fase naa la ñëpp illa man rahima rabbuk loolu la ñuy faral di def te fekk mbir mi du noonu de te boo xoolee ni l'islam bëggee nga fase ko ci téeméeri sëy yoo wàññi juróom-ñeen fukkee kon duñ duñ tas parce que li ko waral mooy fa nga war a jaar ci secours yi jot a jàllal ak yii di nar a ñëw léegi da ngaa nar a fase ndaw si fekk ndaw si dafa gis règle suñu borom ni un un doo ko fase de te li ëpp ci ñun bu ñuy fase soxna day fekk soxna saa ngi gis règle loolu la ñuy tuddee at talaaqul muharram am ñu koy wax at talaaqul bid'i talaaq boobu fase boobu dafa xaraam te it nag def nga bidaa te xam ngeen ne bidaa lu bon la de mbokk yi soxna si soo ko fasee fekk mi ngi gis règle ci jamonoy gis règle am def nga fase mu araam ndax fase dafa am fase mu dagan am fase muñ sib am fase muñ sopp am fase mu xaram comme ni ngeen ko gisee ci takk soxna xam dafa am ku dagan ci moom ku mu araam ci moom ku ñu sib ci moom gis nga même booy génn ci sëy bi même chose la fase dagan na dem nañ ba gis ni ilal yu tax ñu mën a fase te gisuñ benn conséquence ñu fase fase mi araam na parce que boo ko fasee tey jii di nga def musiba joo xam di nga yàq ci njaboot gi di nga yàq ci famille bi loo xam ne boo ko fasee tey jii dina waral yow di nga njaalo ji boo ko fasee tey am ay conséquences yu garaaw dañ ne la fase mi xaram na ci yow ak yeneen ak yeneen bi loolu amee sunu borom mu ni bul ko fase te fekk mi ngi ci gis baaxam loolu xam nga yéen danger moo ci nekk mooy ndaw si buñ ko fasee benn def nga fasem biddaa ñaareel bi mooy def nga bàkkaar ñetteel bi mooy da ngay gën a koñe ndaw si parce que iddaam day gën a gudd iddaam ni muy gën a guddee mooy fi mu nekk nii diirëb li mu nekk ci gis règle ji yëpp kenn du ko compte te bu setee règle boobu kenn du ko compte ba pare mu war a wañña waññaat ñetti règle ah kon yaa ngi koy gën a guddal kon ndekete loolu arrangement ndaw si la bu mu la fase ci sa idda loolu sa arrangement la bu mu la fase ci fekk yaa ngi dëgmal sa idda maanaam fekk ci biir li nga war a idda wa nga nekk déedéet talliquhunna li iddatihinna yaani mustaqbilaati iddatihinna mooy mi ngi dëgmal fa mën a idda woo ñaareel bi mooy su fekkee ndaw si da ngaa sëyëg dafa gis règle ba noppi nga sëyëg moom ca set ga ba pare tamit doo ko mën a fase waa léegi kon yaakaar ngeen ni fan nga ko mën a fase kon est-ce que seetlu ngeen bi ci des kon ndax ñi ci ñiy fase ñëpp est-ce que mën nañoo dàq foofu ba jot ko jigéen ji bi nga koy fase dafa gis règle ñu ne mënoo ko cee fase bi nga koy fase dafa fekk moom gisul règle waaye setam googu sëy nga ceeg moom lan moo des kon lan moo ci des bu gisee ngant ba set après fekk sa yëgoog moom ndig ndigal su gàtt si yaakaar ngeen ni ñii fas ñëpp ñëpp ñëpp mën nañoo dàkk fii yaakaar ngeen loolu déedéet gis nga xool nga bunt yi ni ko islam di tëjaatee maanaam mi ngi tëjaate ko tëjaat ngir bañ fase am bul ko fase fekk dafa gis règle bi mu gisee règle ba noppi boo fi jotee sa yëg ci moom mënatoo fase kañ ngay mën a fase faw nga xaaraat ba mu gisaat règle ci diggante bi wala fekk dafa ëmb nga doog a fase léeg-léeg nga dégg nag sénégalais suñ aaday réew mi nuy wax naan jigéen ju ëmb kenn du ko fase waa léegi jigéen ju ëmb ji soo ko fasee moom bu amee doom doonte suba la iddaam jeex na te boo ko fasee bàyyi ba mu am doom mu war a eddawu te war a eddawoo ci mpóot te jigéen ñi nàmpal ñu ëpp duñ ngeen foofu fuy gën a gudd mbaa kon boo bàyyee ba mu am doom idda bi du gën a gudd idda bi mën naa toog at ak nangam maa ñaari at bi ndax bu boobaa dafa war a fóot te dafa am jigéen ñoo xam ne bu ñuy nàmpal duñ fóot kon ndekete jigéen ji fi l'islam bëgg ñu fas moo tax gis nga léeg-léeg gis nga sharia wallahi da ngay jékki-jékki di wax sa xalaati bopp rek waaye ndekete fam ko rëdd foofu rek la li ngay jàpp ne ndaw si dafa ëmb dafa toll diggante buñ ko fasee mën naa lii mën naa laa fekk sharia sóor na loolu ndax la nga yaakaar ni fa lañ ko war a fasee buñ ko ko fasee idda mën naa gën a gudd kon fa talliquhunna fase leen leen li iddatihinna fekk ñu ngi dëgmal seeni idda mooy fi mën a idda woo sunu borom mu ni wa ahsul idda te it na ngeen takk nag idda ja ahsu baatab ahsu xoolal arab yi bu njëkk xam ngeen arab yi ñoom umma lañ boo xamante ni daanaka ummiyeen ummiyeen la wala dibaata fil ummiyin comme ni ngeen gisee suratul jumaa ñoom mënuñu ay 1 2 3 wala waahid isne ñëpp mënuñu ko woon lan lan lañu alxasa mi ngi jógee ci alxasa mooy tey boo ñëwoon ci ay xor xor xeer yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw xeer su ndaw si boo sujootoon tey xadis bi ñëw naan booy sujoot nga dal ci xasa fii ak laalu la fii ak gaañu la bul ko faxas wala booy faxas benn yoon kese doy na baat boobu ci lañ jëlee wa ahsu xoolal alquran ni mu jotee day wax ak nit ñi ci làkk woo xam ne li muy wax day mel ni yow lii ngay dund ndax ci xasaa yooyu xor yooyu ñu doon wàññi sunu borom ne wa ahsul idda na ngeen ko wàññi ba mu leer idda ji xam ni fii la tàmbalee fee la yem abdullah ibnu amar benn bis dafa fasi soxnaam fekk soxna si daa gis reegal omar ibn alxataab dem boole koog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam omar moom kilifa de moo ne omar mooy kilifa ak abdullah ibnu amar moo ne omar ku ne xam ne ne mënoon na koo faj waaye kilifa gi war a def bu fi nekkee dañuy dellu ci moom moo tax mu dellu ci yonent bi saa sallam yonent bi mer sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mer ba xonq bët mu ne ko digal ko gaaw na ko na ko na ko na ko na ko fayliwaat da ngeen a bëgg a foye téere yàlla bi fekk maa ngi fi kon ndekete yow mi fase sa soxna fekk mi ngi gis baax yow mi fase soxna fasem bi daa fase fu ñu ko doon teree yëgal ni tey yonent bi bu la fekkee woon di nga ko merloo ba xonqali bëtam sallallahu alayhi wa sallam ah mbokk mi merloo yonent bi ba xonqali bëtam foo koy jéggaloo ji sallallahu alayhi wa sallam inna alladina yuzuuna rasulallah ñii lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah buñ tuubul musiba dal leen de abdullah ibn omar fekkee na yonent bi lor ko taxu woon nu jóg waaye ñàkk xam yow nag xam nga teyit yonent baa ngi fi tuub na dellu gannaaw kon talliquhunna li idda wa ahsul idda wàññi leen ko ba mat mooy lan bis sàngam lañ ko wàcc te biñ koy wàcc fóot na ba set te jotuñoo ànd ak moom biñ koy wàcc moom fekk nañu ànd nañu ak moom waaye dafa ëmb ila axiri nga doog koy wàcc kon mbir mi na leer ca na nga koy jaarale sunu borom mu ni wattaqullaha rabbakum ah ragal leen yàlla seen borom wattaqullaha rabbakum ragal leen yàlla seen borom sa waay su fekkee da nga koy fase même bu fekkee fase nga fase bu sunna même su fekkee fase yoo fase biddaa même waaye ragalal yàlla am na kàddu yoo xam ni kenn du fase jigéen ba noppi di ko ko wax xamoon naa jigéen joo xam ni bërëm këram ba mu ko wàccee da ko waxal kàddu boobu ay gone yu tuuti lañ waaye kàddu gu ba mu siiwee ndeysaan allahu akbar ku ko dégg rek da ngay bëgg a wàccu ba ca la ma mujjee xam ndaw sa amul borom kër ndax kàddu la gu ñaawa ñaawa ñaawa ñi lan moo tax nga wàcc ko mu ni kii day sawlal day sawlal ba ma ko takkee ba léegi bis bu nekk mu sawlal te li gën a yéeme mooy billahi wallahi am na gor yoo xam ne ku xawi seen sutura yàlla xawi sa sutura est ce que xam nga ne leneen da ngay jékki-jékki gis nit suturaam xaawee ko fekk dafa xaawi sutura mbokkum jullitam yonent bi saa sallam ne ne képp ku xaawee si sutura su mbokkum jullit yàlla xaawi sa sutura xoolal loolu ni mu nekkee sutura même bu fekkee dëgg la est ce que loolu warees na ko wax wallahi dafa am nit ñoo xam dañoo bon dañoo bon maanaam li ñu tuddee bon ci moom dafa am nit ñu ko def ndax dafa am kàddu yoo xam ne loo mere mere mere mere nit ki waroo ko wax bokk na ci mandargay naafiq ida xaasama fajara saa bu xuloo rek faw mu wax lu ëpp gis nga de wattaqullaha rabbakum ragalal yàlla te nga bañ a tas yaakaar ndaw si daf laa bëgg bàyyi ay góor yu bari tànn la nga jël ko ba gis ni mi ngi commencé màgget wala mi ngi commencé nangam nga am koo bëgg rek wala nga bëgg a takk keneen wala situation yi changé wala mu tooñ la lu ko jarul nga daal di koy wàcc mu dem fekk tasum yaakaar am na ci billahi yàlla dana tas sa yaakaar maa la ko wax am na gor yoo xam ne ku tas seen yaakaar gis ko sa yaakaar seen yaakaaru famille da ngay gis koo xam ne ku la ëpp xaalis fuuf ñëw na bàyyam ni ko duma la ko may diw laa ko fi may ñun war nañoo góorgóor ragal yàlla de loolu mi ngi am de teg nañ ci bët ba tàyyi da ngay gis koo xam ni ku la ëppale fuuf ñëw na ñu xañ ko ko yow nga ñëw ñu yërëm la ah xam ni diine rek lan la toppee ak jikko ju rafet may la ko nga def jëf yoo xam ni léeg-léeg nga daj ci koo xamante ni seen famille dañ naan ñun de ñoom diw duñ leen mayati soxna mukk xoolal kooku kàddu parce que yaa ngi yàq yaa ngi yàqal yàqalaate laa darara wala darara bul loru bul lore fi mu nekk nii yaa ngi lore maa ngi ciy fàttaliku koo xamante ni yaayam dañu woon mukk kii moom xalaatu kenn du ko maye waat wax wax yoo xamante ni mënuma caa jaar ndax fii waxukaayu mbedd la ci tawfiqi sunu borom ci sunu loxo la sunu jaar ba ñu convaincre ko mu génn ca lam jàppoon yàlla sunu borom yërëm ko te jéggal ko xoolal yu mel noonu ci ay xeeti yàq léeg-léeg nga ñëw ñu wax la ay mbir nga assumer say responsabilité fekk wor nga nar wala yaxiqul makru sayyi'u illa bi ahli wor ak yëf ñaaw yooyu du këpp ci si kaw kenn lu dul sa kaw yow sunu borom mu ne wattaqullaha rabbakum ragal leen yàlla soxna si fase ko warta tax nga wax ci moom lu ñaaw fase ko yow yéen seen waa kër ay fumiste ngeen yéen sa sa sa sa maam ak sa nangam ay fumiste ngeen defe nga loolu defe nga lii nii nii ko gore war na ko wax ah yow sa baay saytaane bu mag la xam naa ne moo la wax nangam ak nangam li may wax nii nit ñee koy wax ma di ko nettali di nit ñee koy wax de baat bu ma fi wax rek yëgle ni am na ko ko wax gis nga yow sa yaay du sëykat xam nga ne sa yaay bu doon jigéenu sëykat du la far ci li nga nekk nii defe nga ne sa yaay du sëykat du la aw saaga la waroo saaga sa mbokkum julit sa yaay du sëykat kuñ ko wax rek saaga nañ la gis nga wattaqullaha rabbakum ragalal yàlla ci li ngay def laa tuxrijuhunna bu leen génne soxna yi min buyutihinna ci seen biir néeg yi allahu akbar al imaamu shawkaani dafa wax ci naylul awtaar wax ju wax ju wax ju daw yaram ndeysaan imaamu shawkaani bi mu tafsir aaya ji ci tee tafsiram bu am solo boobu tudd naylu ah déedéet fatxul qadir naylul awtaar kii la fiq la téere fiq la soo demee ci fatxul qadir tafsir la bu am solo ma sha allah dafa wax ni xoolal yàlla fii dafa adressé néeg bi ndaw si yàlla waxul laa tuxrijuhunna min buyutikum bu leen leen génne seen kër yi te fekk yaa moom kër gi yaa moom néeg bi yow ku góor ki waaye dafa jël néeg bi adressé ko ndaw si effectivement fi mu nekk nii bu ñu nekkoon ay wujji peccergoo ki ñoom seen ci biir kër gi bu ñu dikkee dañu wax ana néeg bàyyi diw de néeg yaa diw la ñuy wax ci wolof sax gis ngeen ni méngoo néeg yaa diw ana néeg diw ñu wan la ana néeg diw néeg yi duñ ko xàmmee ku góor ki ñi ngi koy xàmmee ku jigéen ka mu ne yàlla ci boppam uufal na ndaw si moom sax moom moom néeg bi ndeysaan bu ko génn néegam kii boo amee benn pexe mu dul fase def ko su fase mënta ñàkk bàyyi ko ci néegam tuuti mu bànneexu wàlla ci néegam tuuti laa tuxrijoogunna bul génne soxna si mim buyootihinna ci seen biir néeg yi da ngay gis ko fase bu ba say bagage tey doo fanaan allahu akbar wallaay ni ngay jëflanteeg moom bu ko yàlla jëflante woog yow sa sutura xawee ko yàlla mi la yërëm nga yàgg a def ay giraawaali te ba léegi mi ngi la bàyyi fii daairatil islam kufru sax def nga ko kufru sax def nga ko ndax amaana nga def jëf joo xam ne bu la ko yàlla jàppoon kufru lay doon ci yàlla jàppee la ko ndax dangaa juum wala dangaa ñàkk xam yow ndaw si mënoo koo muñal dara laa tuxrijuhunna bu leen génn soxna yi mim bu yóote génn ci seen biir néeg yi wala yaxrujna te ñoom it bu ñu génn loolu mooy lan mooy ci biir kër gi néeg bi lañ war a eddawoo xaaj naa solution yi ñetti xaaj avant fase di am wut nañu ay secours ba sonn am nañu jàll am nañu rëcc bi fase di am islam di seerewaat buntu bi bul ko fasee fii bul ko fasee fee bul ko fasee fee fasee ko fii nga xam ni seere giñ ko seere dana waral ku naroon a fase boo ko waajee ci diggante bi sax am gaa yi wax ak yow ah sa waay xam naa liñ doon waxtaanee démb sa ngoon bi nga xoolaat ko man de yëg naa ne gis nga kii boo ko fasee ba bàyyam jot ci di nga yàq lu rëy rëy wax la ay wax sa xel di sa xel dellu si waat loolu boo fase woon démb ca ngoon wala fekk fo foo bëgg a fasee rek fasee fa est ce que solution bi dana am déedéet ñu waxtaan ak yow ci diggante bi sa ndijaay woolu la nga ñëw mu ne yow dégg naa da ngaa jotee sa soxna ba ne da nga koy fase mu ne waaw mu ne bu ko fase de téye ko nga ni moo ma def nangam mu ne la téye ko la waaja ne woon baay ji daa ànd ak doom ji daa ànd ak jabar ji ñëw ci baay ji ah ni ko mi ngi nii dafa réew dafa lii dafa laa wax a wax a wax ba àggal bàyyi ji ni ko góor ki yaa ko tooñ yow mii yaa ko tooñ ah yow man xanaa déggoo li ma wax ni mu ne yaa ko tooñ nan laa ko tooñee mu ne ko parce que moom dafa nuru yaayam te jigéen dafa mën a laaj mën a tooñ te yow nuru woo sa baay man mii sa baay def nañ ma lu gën a métti lii may baalaate kon moom def na maninam daa nuru yaayam yow yaa deful sa manin yaa nuruwul sa baay boo nuru woon sa baay du ngeen jote da nga koy baal waa ji ba mu di dégg dégg daaj na moom daal da jug rek ànd ak soxna si dem yoon gis nga nit dafay dafay neex a waxal tuuti waaye gis nga bu doon ñu na fa ngay nekk di indi ay philosophie ay Descartes ak Karl Marx nee na kii nee na gis nga waaye bu fekkee yàlla def na ci yow ak mbaax tuuti buñ la waxee njub rek da ngay daal di jël bul génn ndaw si la nga gis ko génn génn gu ñaaw sax génne gu ñaaw fase soxna si tay tay tay ci guddi gi amul heure bu mu dem nga génne ay bagaasam sànni ko ci biti tey doo fi fanaan ci foo foo xam nga fanaani fa ndaw sa dem ca jàkka ja fanaani fa yàlla xam ne lii may wax yépp mi ngi am ndaw sa dem ca jàkkay koñam fanaan fa xoolal ma lii foo fanaan yaa xam di wax wax yu ñaaw ndeysaan te moo ne baatab yaa xam bi ngay bi ngay nopp di takk waxoo ko woon de wallaay baat yi nga doon wax ba ngay nopp bu dee ku gore nga gis nga gis nga gor du soppeeku waxoon naa ni gis nga yonent yàlla Yuusuf ba ko gaa yi fekkee ca firim ngénte ma ca biir kaso ba muy prisonnier taq rib ñuul kuku tilim nekk simple nit ordinaire gaa yi dañ ne ko inna naraka min al muhsinin ñun de gis nañ yow ku ku mën a rafetal nga yow ku ku nangam gis nga ba mu génnee nekk buur ak li muy am am am mbokk yi rek wata sa doqaale naa tee nga ñoo sarax wëlbati ko ne ko inna naraka min al muhsinin gor du soppeeku ak lu mën a xew rek da ngay am maîtrise bul génn ndaw si tey ndaw si boo ne ko génnal am na sañ-sañu bañ aha waaw waaw fi ne jigéen yow sañoo ko ne ko génnal néeg bi tey wala kër gi tey tey tey tey fase naa la jugal fi loolu du sunna de mbokk yi déedéet wàcc ko ci kër gi wala yaxruj na ñoom it bu ñu génn illa xarfu istithna exception la mu ni illa lu dul an yati nañu andi bi faaxisatin mu bayyi na njombegul fës njombegu fës mu fassiru ni wuute nañ ci waaye ñi ëpp ci ñoom li ñuy wax dañ ne lu mel ni njaalo waaye am na yu ca dugg yu dut moom bu fekkee ndaw si day indi ay góori jàmbur ci biir kër gi ci fashion bay na lay doon wala mu nekk ci biir kër gi di la kokkali ci fashion bay na lay bokk wala mu nekk ci kër gi di jota sa yaay xam nga ku xës ba yàqule moom danga naan naa yàq lépp doog a dem lépp ci ci ku ragalul yàlla day dugg ci faash mu bayi na wala mu nekk ci kër gi di histoire ak sa yeneen soxna bu dee am nga yeneen soxna ndax comme yàqule na rek na ku lakkale morom lay wër illaa yati faash mu bayi na wa illaa lépp loo xam ni ay jëf la ju ñaaw ndaw si di ko def ci kër gi su boobaa nag am nga sañ-sañu nag génne ko moo tax wala yaxruj na buñ génn illa an yatiina bi faaxisatin mubayina léegi loolu lan mooy illa bi illa bi mooy da dañ laa jëkk a seere ci waar la dalal sa xel nga dëgër bopp ñu wax la bul fase fii fasel fee bul fase fii fasel fee nga dëgër bopp wala boog nga continuer loolu moo moo fi sës bi nga ñëwee ba fase ba noppi nag ñu ne léegi ndaw si bàyyi ko mu eddawoo ci kër gi teyit boo eddawoo ci kër gi da nga ko war a jox ay kat kii aya na ñaari fanam kii aya ñaari fanam ñaari fan yim aya moom da nga ko war a jox ñaari fan yim aya da nga ko war a jox yow it manal di ngay def rek bu ayesee daal melal na nga daan mel même bu la faalewul gis nga yàlla yàlla moo kéemaane gis nga kala naboon ba dem takk la am na noo xam ni boo ni melee rek bu ko waxee bu ko waxul xelam dina dem ci yow nit nit la bi ma demee côté kaolack yooyu ak fi nga xam ne moo am moto yu jakarta yi ma gis góor di supporter jigéen man dama ne ñii duñu ay góor ñii matunu góor dee góor gu wér peleng jigéen ni la ñàpp ñàppaaral nga yëg jàmm kooku baaxoo wéroo déedéet wéroo loolu loolu góor gu wér mënu ko yàlla xam ne ni ku ngeen gis mu di ko def rek xam ne ni kii dafa dese kii ak seen tiiram dëgëru maa la ko wax góor li tax ñu lay tere xool dina tere jox loxo dina tax yow kii ñëw toog ci sa ndigg li nag uuf la teg ci nga mën koo yóbbu ba fa doo yëg dara dara mel ni dara xewul da ngaa feebar faju ji dama nga faju ji gis nga ndaw si jëlal say matukaay defal la nga daan def cuuraayal xeeñal takkal même bu la faalewut bit bi dugg na yow defal loolu rek gis nga jigéen ñi commencé def ñëpp fukk ya ko def yëpp juróom-ñett ñoom dañoo génn ak ndam léeg-léeg nga gis góor gu mën a sagu su ko defee fase na la ba noppi waaye xam naa ne def nga lu ko yëngal ah muy nekk fii di wokkatu wokkatu loo di gestu gestu loo léeg-léeg mu jékki-jékki defar defaraat mbalaan meeg fekk yëpp yow la bëgg a waxal rek su boobaa nag jigéen ci day am xel di jaay te nga xoolaat li ngay def lii lépp daanaka yaay wàcc tuuti nag yow it yaay wàcc parce que góor daa bëri tiitar góor dafa bëri tiitar de rawatina bu tollee ci buntu bii nag faw mu tiitar tuuti te moo yey nag bu tiitaroo du baax di moo fasal bëri ñëwaat di toppaat ci ginnaaw ko day ñàkk fayda di léegi bu tiitaroo tuuti rek yow comprendre ko rek saa bu defee noonu bu xëyee defaral ko ndekki lu neex mu dem yoonam gis nga fi mu nekk ni def na ko ay gii defaat ko ay gee defaat ko ay gee nga di ko defaat di ko nga yaakaar ne amul jeexintal laal allah yuhdithu ba'da zalik yàlla moo wax de wallahi yàlla wax maanaam mbir mi nekkatul léegi sa digganteeg sa jëkkër jàppal ne yàlla moo la wax defal gis nga yàlla mooy jékki-jékki rek benn bis bu ko defee nga daal di ko nijaay te ngaa xoolaat li ngay def lii nangam nangam nangam mu ne di commencé yow da nga dëgër bopp waxoon na la nangam nangam nga ne ko li lépp wax nga dëgg fi ne loo wax rek dëgg la loo wax rek dëgg la man kay fi ne jéggal ma rek man li may def man xam naa ko après mu ne waa baal naa la fekk yàkkamte woon na laa baal yàlla xam na ni fekk yàkkamte woon na laa baal waaye problème mooy mun laa baalee noonu nag jékki-jékki affaire bi rek baal la nii déedéet moo tax gis nga sëy sëy daal la sa waay affaire politique dong la nag gis nga li ngeen gis politique affaire politique la rek fi nekk nii noonu ngay def noonu di naxanteeg nit ñi bañ fal la waxuma la nga fen nag comme ni politique man li ma jublu mooy naxanteeg nit ñi fexe ba am ci moom li nga bëgg ñëw ci waa dëkk bi di leen dig di leen nangam di islam bu demee ba di la wax ngay dig sa soxna léeg-léeg sax nga waxtaan ak moom wax loo xamante ni loolu sore nag dëgg fukki mbub ak yaramu neen fekk yàlla xam na ni bañ xiiroog naa yoo rek am gis nga kon yooyu faw ñu bàyyi ci xel sunu baram mu ni wa tilka lii ma leen digal wa tilka fii ma leen wax ngeen jaar fa wa tilka nii ma leen digalee ngeen fasee ko ni xududullahi mooy day tayir yàlla yi frontière yaa ngoog de jaaral fii mu rëcc nga duggaat beneen bureau ñu réglé foofu sëy bi sottiwut nga jaaraat fii ñu réglé ko sottiwut dernier bureau bi ngay dem sunu borom mu ni léegi comme tas nañ sëy bi léegi bàyyil ndaw si ci biir kër gi ci diggante bi façon boobu ma la wax nga di ko sëyee bu ayee defal la nga war a def léeg-léeg sax nga tege tegal ko mu mu sagu sagu lu coppati ci ñaari coppati la war a da ngaa mer ah waaw doo reer doo añ daal di noppi rek yow yow tafal taf fële rek jàppal ne yàlla moom lim la dig dana ko def wa illaa kenn ci say mag ñëw ah yow de xam nga ni sama rakk nga yore sama rakk nangam nangam wala sama mag nga yore te wax dëgg yàlla wax wax yu daw yaram amaan na xelam dellu si sa ndijaay ñëw wala ndijaayam ñëw sa baay ñëw wala baayam ñëw bu fekkee am nag repp nga ñu ne indi leen repp nga ñun nag amuñuy repp nga moo tax fi nekk nii koo woo rek bu ñëwee da ngay gis waaju dëgër bopp dëgër bopp ba nga xam ni lu waay wax mu ni kii ku teema fase ko tey rek ma xalangoo suuf moo tax it nga daal di koy fase ba noppi nag récc ko am na benn waay bu ñu doon nettali ni dafa wàcc soxna si ginnaaw tàkkusaan soxna si boobu ay bagaasam jël taxi di dem mu toog tuuti xale bi ni bàyyi damaa bëgg a dem ci pot ba mu yëkkati ko teg ko ci pot bi bi mu ko yëkkatee teg ci pot bi di ko defar ak a toppatoo xam nga loolu sax amul problème ndeke beneen xale ba ma ngay dem ca courant ba xam naa yëf yi xaw koo maas mu daal di yuuxu mu wàcc fee kee daal di départ bi mu wàccee kee fee départ daw ba lay ñëw fekk kee pot bi rëcc na mu daanu ci suuf ñaari xale yépp di jooy mu xool xool xam ne liy doxut mu daal di jël taxi ndeke ndaw si oto bi mu jël dafa paan ci yoon moom moo jiitu ndaw si kër baayam loo xam ne xoolal loolu xoolal affaire ñàkk fayda yooyu moo lay wax ni gis nga yëf yi jaaral fi l'islam bëgg boo ko defut après yaay mujj ñàkkaat fayda yow ana ndaw diw mu ne yegg seegul ma di de man gisuma ko mu ne moom de sànq la jógee ci kër gañ nees tuuti ndaw si yegg seeg ay bagaasam waaye léeg-léeg it nag gaa yi waccante fekk waccante gi yépp parents yi ñàkk xam nu ñuy doxalee rek gis nga bu ñu xamoon nu ñuy doxalee léegi te yëf yi sotti am na keneen koo xam ni moom waa ji da ko wàcc ndaw si dem kër baayam bi mu demee kër baayam waa ji daal di toogub diir xam nga léeg-léeg moom olof yi dañuy léeb ni gémmiñ guy nàcc borom du wax jàmm nga bàyyi ko ba gémmiñ gi nàcc ba mu boros ba mu set bu ko defee dana wax jàmm mu daal di yolleeku ndànk dem siyaare ji ko seen kër bi mu yegsee xam naa bàyyi ji la doon seet si bàyyi bi nekk xakim léeg-léeg tamit nekk xakim baax na ci de bàyyi ji daal di ko e kii yow lay seet si de man seet si wu ma de day dégager ay responsabilité totale dana néeg bële mën ngeen faa dem ngeen waxtaan man damaa jàpp fekk yëpp ay technique la bu mu teg rek ah ndaw si tamit comme jëkkëram la woon donte problème am na mu daal di koy defaral reer ñuy waxtaan ba guddee jot paa bi toog ci néegam dégg ña ngay waxtaan rek ndeke da booba li olof naan yabu ca yabu ca namm ca la woon kenn ku ca nekk yaa ngi yàkkam yëf yi sot paa bi daal di romb romb lu ci bunt bi daal ni fi mu nekk nii bu guddee mën ngaa fanaan ba suba de heure bi moom génn ko wóoru ah daal dem yoonam xam nga loolu arrangé na ndaw si arrangé na waa ji ñu daal di fanaan ba su ba su ba set xam nga fanaan ba bu xasee am moom fay li am na bañ xëyee paa bi jaar ci buntu kër gi waaw bu ngeen nekkee fi ne man ngeen daal dem na jarul ngeen di xaar kenn gis nga fay li ku simple amul toog waxtaan léeg-léeg léeg-léeg gis nga gis nga xakim mën naa régler mbir mu garaaw ci simple nit mu gàtt borom bi subhanahu wa taala mu ni wa tilka xududullah lii mooy frontière yi daytal yi programme bi suñ borom tëral wa man yataadda xudud allah képp koo xam ni dafa fëq nag frontières yi suñ borom tër ni fii lañ war a jaar nga fëq ko frontières yi mooy yan frontières yi mooy bul fase nii nga fase noona bul fase ci fekk mu ngi dëgg ma eddaam nga fase ko ca booba bul fase fase bi daa nga fase ko ah bul fase wax lu ñaaw nga fase wax lu ñaaw bul fase bàyyi ndaw si mu day ci saa si nga fase dem ko wala ndaw si nga gis koo xam jigéen jee gerte moom da nga naa ko toogal fii mu ni eddawuma damay dem sama yoon su boobaa nag dañ ne ak xam la kenn du ko ci forcé loolu tamit góor gi na ci bàyyi xel bëgg a jëfi sunu mu tax nga ne ko toogal sunu borom ni faqad zalama nafsa wallaay tooñ nga sa bopp tooñ nga sa bopp de laa tadri xamoo ndax laalla allaha aman na yàlla yuxdisu dina xewal baada dalika ginnaaw mbir yi amran beneen mbir mooy lan mooy ci diggante bi li ma wax sa xel dellu si wala xelam dellu si wala am ku tukki woon ñëw ah léeg-léeg nga gis teg te li gën a yéeme mooy gis nga laa tadri la allah yuxdis gis nga léeg-léeg ñëpp ay ñaan ñëpp ñaan mu bañ yow nga ñëw di ñaan ñu ne la jëru ko kii boo ko ñaanee day bañ tu addin kon borom bi subhanahu wa taala mu ni wa tilka loolu xududullahi mooy daytal yi nga xam ne moom la suñu borom tër wala yoon yim tër ni nañ fa jaar wa man yataadda képp koo xam ne dafa jalgati ëppal romb xududallahi frontières yi suñ borom tër ni nañ fa jaar faqad zalama nafsahu tooñ na boppam te it laa tadri xamoo ndax laalla allaha amaana suñ borom yuxdisu dina amal baada dalika ginnaaw joto yooyu amran meneen mbir muy juboo am mooy li ma doon junj sànq léeg-léeg nga gis kam war a jaar ci ay loxoom daa yegg seegul te loolu nañ ci bàyyi xel léeg-léeg nit ñi nañuy bàyyi xel loolu da ngay gis nga ñëw ñu ni mënoo ci dara kii ñëpp wax nañ kii dëkk bi famille bi ñëpp wax nañ mu bañ mën ngaa ñëw fekk sa sens la yow ndax lu nekk am na ku ko yàlla nar a jaarale ci loxoom yow mën ngaa ñëw wax waa ji wàcc moo tax toujours rek ñi war a wax nañ wax ñi war a jóg nañ def su ko defee képp koo xamante ni defar moo la tax a jóg nga def ko su boobaa yàlla mën naa def jeexintal am su ko defee kon laaye jooju mooy aaya ji jëkk ci suratu talaaq yaakaar naa ni lii ñu jot a dégg ci ay jàngale firndee ngoog bu lay wan ni mbir mi kon nit ñi niñ defee ne noonu la simple simple wut noonu ñaareel bi mooy mbir mi laaj na ragal yàlla gu mat sëkk te saa su ca amee kër yi gën a ñoŋe saa bu ca ñàkkee kër yi am jafeñ-jafeñ ñetteel bi mooy bari waa nag ñoo xame tey ak tumuraanke dikkal na leen fekk teqalikoog seeni wayjur moo leen ko yóbbee ndax gone du am ñaari kër comme ni ko wolof di waxee ñeenteel bi mooy bariwaa na koo xamante ni tas na muy jigéen catastrophe yu métti dal ko fekk fa mu jóge dafa bàyyi gàkk-gàkk dafa wor dafa wor mbaa mu fecc kóllëre mbaa mu tas yaakaar mbaa mu tooñ jóge fa bariwaa na góor gu génn ci sëy catastrophe yu métti dal ko fekk boo seetloo ba ca biir dafa wor mbaa mu tas yaakaar mbaa mu fecc kóllëre yii may wax nag tekkiwul ni saa bu sëy tasee rek noonu la déedéet am na ay téeméeri téeméeri sëy yoo xam ni seeni borom macha allah am nañu ko ragal yàlla ba ba ñuy fase ña ngay séddale lislaam ndax tamit bariwaalu bari bariwaaw ñu jàdd yoon du tax nga jàpp ni ñëppay jàdd yoon laa yastawi alxabisa wa tay wala ajaba kasaratul xabis ba léegi am na ñuy góorgóorlu kon ñu xam loolu beneen bi ci des mooy programme bii l'islam tër ci wàllu sëy dafa jaadu ñu di ko jàngal nit ñi nii nii ñu jëlee dars ci wàllu fase noonu la war a amee ay darsu ci wàllu sëy léegi nag ndaw si nga xamante ni moom da nga koo fase te fekk sëyagoog moom da nga koo takk may ko baatam te fekk sëyagu leen wala gisanteegu leen ndaw si moom da nga koo takk fase ko te fekk gone la gu ma tagul gis baax maire bi da nga koo fase fekk moom gisatul baax waa ji daanaan ba di tat ni jabar ji fase naa la waa ji dafa mer bay fuur ni jabar ji fase naa la waa ji moom mbokki ndaw si ñoo ko ne fasel ndaw si taxaw nga jëm kaw jëm ñun la fase ko léegi forcé la moom it luy àtteem yii yépp benn bu ci nekk am na àtte bu wér ci lislaam ni nii la su fekkee nag waa ji dafa fase fasem biddaa muy ndaw saa ngi nekk ci gis reegal mu fase ko ca su boobaa def nga lu bon def nga bakkaar def nga fasem biddaa lislaam mere na la waaye nag fas ma fase ma day tàbbi de loolu mooy li gën a wér li gën a wér fase ma day tàbbi dañ koy compte am na lu ñuy tuddee albaynunatu sughra am lu ñuy tuddee albaynunatul kubra payliku ndaw geeg payliku mag gi fase mu mag meeg fase bu fekkee da ngaa fase ndaw si te fekk mooy fase mu njëkk wala ñaari fase su boobaa loolu la ñuy tuddee as suxra al baynunatu suxra nga xam ni fe nuntarati fay li mën na caa am ak fay li tamit nun koy defee su fekkente ne da ngaa fase ndaw si fekk na da nga kaa war a fay li ci kër gi la toog ak warul toog fii ak ci iddaam la nekk sere seeron disposition la nekk saa boo ko bëggoon a fayli da nga koy yóotuwaat mu ñëw ngeen fayli waaye nag bu sëy ba jeexee bu ab idda ba jeexee nag takkaat mooy am su fekkente ne nag ndaw si da nga koo fase fasem ñett moom foofa moom jeex na la ñuy wax amul na fi toog amul laa tuxrijuna min buyutihinna amul wala yaxrujna na dem nga dem ndax xataa tatkiha zawjan gayra yii yëpp ak masaayil yi nga xamante ni moo des ci attay fase ak payli insha allah dina ñëw ci dars bii di ñëw nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir defal ñu baraka ak lépp loo xamante ni mooy ak yombal ba tax lépp luy njub bu ñu ko déggee ñu mën koo jëfee boolañ ci mboola mi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana musal nu ci lii nga xamante ni mooy xottate ay famille muy teqalikoo ak la ko wund ak bépp yàqu-yàqu boo xamante ni ci njaboot lii ak lu ne mel mën na ko indi di ñaan suñu borom mu musal nu ci seytaane ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seytaane li mu gën a bëgg mooy ñaar ñu teqalikoo bokk na ci ki ñëw ci njaboot gi ni ko tay di fexe naa ba jaxase diw ak diw ba jota nañ fasante nañ daf koy lëng ni ko anta anta yow gërëye bi dëgg yaay gërëye bi xadis bi sahih muslim anta anta yow moom yaay gërëye bi kon gis ngeen ak yàqute ni mu ko bëggee waaye yàqute gi gën a bëgg mooy teqali ko yàlla na borom bi musal nu ci musal ci mboolem jullit wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain